Vous êtes à Colda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants. Les cours privés foirés sur la route du camp des gardes, après la pharmacie Enzala Sikilo, vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la sixième à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés foirés présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur des cours privés Foyer au 77 764 68 04 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant Sem au 77 559 30 42. Les cours privés Foyer, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. cours privés REC, rec, te bala euh, dans une émission apostrophe deuxième euh, numéro euh, toujours qui lancement ou l'émission. émission euh, ba tey ñu nek fi nga xamantene moy mooy Kër Massar euh, di fi dalal ay kàngam euh, ni len ko waxee nak émission apostrophe émission la bo xamantene dana wax ci politique daanaka moo ko yëkkati tam tamit dinañ wax ci société ñu fas yéene dalal ay acteur politique waaye tamit ay acteur société civile bi fas yéene li nga xamantene mo soxal Sénégal ay poñ yo xamantene Sénégal lay amé ñu waxtaane ci jéem ci rek mooy soxé ci wala saako ci am ay solution yo xamantene buñ ko tegee ci espace public bi nit ñi mën cee jëriñoo loolu tax ba ñuy amal euh, fii euh, ay euh, émission yoo xam ne dañ ciy choisir ay kàngam yoo xamante ne kenn dootu ko dootu leen naatable li ñuy def balaa ñuy sóobu suñu émission mooy dañuy jox kàddu gi suñu co-animateur muy Djiba Diawo mu daal di nuyoo bu ñu paree doog a jàkkaarloog suñu invité Djiba asalaamaaleykum. voilà maaleykum salaam Mouhamed Diop maa lay nuyu maa ngi nuyu mboolem internaute la Dépêche TV comme ni nga ko waxee donc c'est une nouvelle émission politique et société yàlla dogal ñu lancé ko fii ci Kër nga xamante ne donc euh, c'est une localité à enjeu côté politique ak côté société ak euh, aussi si côté économique voilà euh, donc di rafetlu vraiment émission bi voilà donc Hanarek rek ma jox la kaddu gi nga dalal sunu invité bi. waaw ñuy dalal ki nga xamante ne monsieur Abdourahmane Fadi Diallo di njiital mouvement Kër Massar sunu yitte mu mouvement boo xamante ne fii ci Kër Massar kenn dootu ko présenté surtout ci voit li nga maintenant, moi. mooy développement local euh, li ñuy def rek mooy jébal ko kàddu gi monsieur Abdourahmane Diallo ngi lay nuyu di la ziar di la jébal gi di la permettre nga nuyoog suñuy mbokku internet. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, Wa Dépêche TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen nuyu yow sëñ Diop mm-hmm. euh, sëñ ñu ngi leen di ziar yéen ak seen équipe technique bi yëpp ak caméraman bi ak équipe technique bi ngeen àndal mm-hmm. ñu leen di dalal bu baax a baax si Kër Massar mm-hmm. euh, te di rafetlu aussi li nga xamante ni def ngeen ko ngeen créé lu mel ni émission bu mel ni ngeen jël Kër Massar ngeen euh, cëral ko ci ne fii ngeen di defee seen lancement émission bi loolu moom dañ koy rafetlu hmm. ñuy nuyu aussi wax dëgg yàlla seen téléspectateurs yëpp euh, ak auditeurs yi nga xamante ñu ngi seetaan émission bi hmm. di ko déglu mais aussi di nuyu membre Kër Massar suñu yitee hmm. plus particulièrement ñi nga xamante ni tey gunge nañ ñu fi si plateau bi ay Aliou Sow ay Adama Kane ak euh, Yama Touré ak Babacar Diop mi nar ñu ak ñi si des kon ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci Kër Massar di leen remercier na bu baax a baax ndax lii moom lu rëy la ci ñun di remercier parce que Defenani naa ni Kër Massar euh, pàcc la boo xamante ne euh, kenn du ko négliger ci euh, découpage administratif du Sénégal waaye tamit ci li nga xamante ne da koy qui ci Ndakaaru waaye bu ñu waxee ci le mouvement Kër Massar suñu yitte xam ni mouvement la manqueur que ci à l'entame des propos mais wax ni c'est un mouvement boo xamante dans le cadre du développement local liggéey ngeen ci mais bonjour. ñu waxee ci li nga xamante ne moo sax li nga département bi lan ngeen accueillir décret bi nga xamantene mo de le 46e département waa degré boobu moom wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu ndax ñun suñu bopp bokkoon nañ ci ñi nga xamante ni ñu ngi doon xeex loolu ndax gis nañ ni euh, administrativement pikin nu mu ñu doon euh, saytoo suñuy mbir ak yooyu ñun gisuñ ci suñu bopp gis nañu saay su nekk bu jafe-jafe amee dañuy daw seen i ginnaaw yenn yi daf fiy xew te ñun duñu sentir wax dëgg yàlla tey njiite njiit njiit njiit mi nga xamante mu ngi yoroon département bi si suñu yenn jafe-jafe man na am nag wax dëgg yàlla ku waxte yàlla dong tax département pikin bi dafa réyoon dafa rëyoon trop trop ndax moo doonoon département bu gën noonu rëy fii ci biir euh, ci biir région de Dakar bi kon nag yombuloon euh, aussi bien pour maire de ville bi mu administré woon commune yooyu yëpp tey boo xoolee Kër Massar bi ñu samp tey daanaka lu dul jaxaay lépp li ñu nekk ci département Kër Massar tey moom moo ko yoroon kon ñu xam ni kii tey ñu defoon Kër Massar département moo gënoon nga xam ni comme que décentralisation li ñu ci jublu mooy fexe ba euh, fi ñuy jëlee dogal yi mu jege askan wi ñun jàpp nañ ni tey lii njiit njiitu réew mi li mu def nii lu ñuy rafetlu la te ñun mm. lu ñu doon sàkku la te ñu ko ci sant aussi di ko ci gërëm par rapport ak lii nii ndax du moom lañ ko njëkk a ñaan président Ablaye Wade defoon na si ay jéego waaye yàlla dogal na ci moom la sotte mm. eh, di ñaan yàlla aussi yàlla na population bi yëpp gis si seen bopp mu doon njëriñ ba nga xam ne yokkute lay indi ci département bi waaye aussi si Sénégal voilà tey Kër Massar am na département bi mais est-ce que Kër ay jumtukaay yoo xamante ne maanaam infrastructure ñuy tax ba ñu mën a wax département digne de son loolu euh, tey bu dee dañuy wax tey xam nañ ni Kër Massar jumtukaay yi war a tax tey ñu am département amuñu ko am nañ moo tax nag ñu am yaakaar ni bi président demee ba nar ko def département dina jóg taxaw dimbalee département bi ba lépp lu ñu war a am tey boo jëlee lu mel ni caserne sapeur pompier Kër Massar amu ko ci département bi yépp boo jëlee tey lu mel ni stade tey ñun bu ñuy football mbaaw la ñuy dem di football ak yooyu ak yeneen ak yeneen yu nga xamante ni tey marché bu mag bu nga xamante ni dinañ ko tudd ak yooyu. Hmm. amul fii si biir Kër Massar carte scolaire bi bu ñu ko xoolee daanaka carte scolaire bu gën a néew. en tout cas bokk na si bi gën a néew fii ci dakaar moo Kër Massar moom la am côté wér-gu-yaram aussi mu ngi noonu ñun district lay ay district lañ fi am ak yooyu te tey Kër Massar war na mun a am hôpital ndax Kër Massar amul hopital li fi nekk euh, amagul niveau hopital donc yooyu yëpp mu doon ay jafe-jafe yu nga xamante ni tey Kër Massar war na ko weesu te ñu am yaakaar ni département bi ñu indi nag dinañu permettre ñu corriger yooyu yëpp ñu mun fi am lu ëpp brigade ndax fi brigade gendarmerie mo fi nek mhm. il faut que ñu dem am fi lu melni ben benn compagnie ay commissariat am fi ak yu yu ni mel comme que dem nañ ba tay ñu am juroom ben commune. am nañu yaakaar yooyu yëpp doon ay jafe-jafe dinañ ko saafara ci lu mu gën a gaawee wax dëgg dëgg dëgg wax dëgg yàlla jumtukaay yu bëri yi nga xamante ni population bi yittewoo nañ ko amu fi te loolu gënoon na tax lu taxoon nit ñi ne euh, nañu ériger Kër Massar en département ndax loolu mën fi am lu nga xamante ni département bu nekk daf ko yellool jafe-jafe yi bokk na ci euh, président li nga xamante ne euh, mooy wàllum sécurité di kaaraange ñu gis ni mën nañoo ñemee wax ni Kër Massar bokk na ci gox xamante ne daanaka ñoo gën a ñàkk sécurité lan lañ war a def ngir permettre li nga xam ne ñoo dëkk Kër Massar bu ñu tëddee mën a nelaw ba yàndoor waaw xam nga tey li nga wax noonu loolu bokk na si jafe-jafe yi gën a rëy moo tax sànq ma ne fii ñun brigade lañ fi am mm-hmm. brigade bi déjà boo demee euh, ci effectif ñoom am na lu nga xamante ni bu ñu ko bëggoon sax te ñoo ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan duñ ko man ndax quartier yi bëri na boo demee si yenn euh, Kër Massar tey boo jëlee Kër Massar village mhm. daanaka quartier yi fa nekk ëpp presque mat na ñaar fukki quartier boo demee Alaaji Paate li fa nekk daanaka mat na ñaar fukki quartier daal misel ak yooyu Kër Massar doonoon gox bu nga xamante ni téeméeri quartier ak fanweer ak ñeent mhm. la amoon balaa ñu ko doon def département muy 134 quartier yooyu nag bu lu mel noonu bu xam bu bu ñu demee mhm. am fi ab brigade amuñu woon police Kër Massar amuloon police brigade gendarmerie rek la fi amoon ak effectif bu nga xamante ni tey na ci ñoom pour ñu wàlla mun a indi kaaraange ñàkk kaaraange ni lamp yi war a nekk ci gox yi fii tund yu bëri amuñu courant wala bu ñu amee courant amuñu éclairage public te xam nga loolu fu mu am rek wax dëgg yàlla ñoo ngi dend ak forêt bi ñoo ngi dend ak géej bi côté bële mbëbë soriwu fi géej baa ngi fi forêt baa ngi fi yooyu yëpp ñu nekk ay foyer yu nga xamante ni foyer la yu xam ne ay nit mun nañ fa làqu ay samba mun nañ fa làqu population bi tamit daal di yokk bu nga xamante ni macha allah mais mu doon lu nga xamante kenn ku nekk bu ñëwee day ñëwaale ay jikkoom ak ay melokaanam mu doon lu nga xamante ni njaxas la bu indi insécurité bu nga xamante ni tey moo nekk ci biir Kër Massar wax dëgg yàlla comme ni nga wax Kër Massar moom ñàkk nañu kaaraange moo tax ay jëy yu bëri yaa ngi ko fi dégg ay nit yu ñuy yu ñuy faat euh, semaine bee passé rek am na ku fi faataat saa su ne daanaka doo toog ñaari semaine déggoo nit ku ñu fi faat mm-hmm. wala ay nit yu ñu fi agressé loolu moom bëri na fi lool te ñàkk kaaraange bi moo ko tax waaw président tudd nga sànq mbëbës ak euh, mu mel ni foore classée bu mbaaw donc euh, comme ni nga ko waxee ñu bari jàppee foofu mooy refuge ay yenn délinquants yi mu doon aussi benn vieille population Kër Massar ak Malika pour que vraiment ñu mën délocaliser et bu Mbëbës tay yane stratégie manam yane solution ngay proposer vraiment pour que ñu mën satisfaire doléance bobu wa japp nañ ni doléance yi population yi di wax ndax tay gis nañu jafé jafé bi nga xamanteni ni mu ngoy indil askan bi. Hmm. ndax tay mbalit bi nek mbëbës ba léegi dañ koy lak hmm. te nit ñi dañoo wéssu tay fi ay déchets manam ay mbalit bu nga xamanteni pour pour pour que ñu dindiko ko jël diko lak nit ñi wéssu nañu solution yooyu bu yàgg. ci àddina nit ñi tey li ñuy wax recyclage la ñuy wax xool bi xam mbalin mi lan lañ ci mën a jëlaat ba buñ ko tëggaatee ñu mun cee defar lenn lu mel ni tey yenn emballage yi ak yeneen yi ñu mun koo tëggaat mun see defar leneen li nga xamante ni mënu ñoo koo defaraat leneen ñu xool nan lañ ciy sàkkee pexe mais ba léegi mbëbës daanaka hmm. mbalit mi dañ koy lakk te mu doon tey daanaka ñu jege mbëbës yëpp hmm. saxaar si di ñëw ci nit ñi hmm. nga xam ne saxaar si dana am ay ay ay ay lu ci ne lu nga xamante ni wér-gu-yaram nit ñi daanaka euh, da dafay lompoñ si côté boobu mu doon jafe-jafe yu metti ci nit ñi te ñëpp buñ ko xamee mbëbës dafa jege benn dex te dex boobu mbalit moomu da koy polluer te def boobu pollution bi bu ko amee nit ñi ñuy naan ndax dafa bëri ay ñu am ay moto pompe ak yooyu ndax comme ni ma ko waxee mhm. bëri na ay bërëb yu nga xamante ni ndox yeggagu fa mhm. te ñooñu bu boobaa pomp yi pomp jàmbaar yi la ñuy jël ndox moom la jël di ci naan mhm. ñeneen ñi di ci jël di ci arrosé ay lu mel ni ay légumes ay yu mel yu mel noonu nit ñi di ko lekk donc mu doon ay jafe-jafe nga xam ne tar na lool si population bi euh, moo tax it population bi bëgg mbëbës ñu délocaliser ko fii ak décharge bu mel nii bu fi bu état jàppee ni décharge bi daf fi war a des kon état war na xoolaat tey système bi nga xamante ni mu ngi koy def ndax mbalit tey alal la dafa fekk ni rek mbëbës ni mu tàmbalee moom la continuer ba tey mais tey doonoon na opportunité bu nga xamante ni ñun waa Kër Massar wala Malika Kër Massar mm. dañoo waroon a sawar ñu ñëpp ñu indil ñu seen mbalit ndax mbalit am na solo trop mais na fekk ni li ci war ñu def ko ci hmm. maanaam tey mbalit mii ngay gis munoon nañ ko jël ba mu ñuy génneel ay carburant hmm. ndax am na ay systèmes yoo xam ne am na ci àddina tey dañuy jël mbalit am nu ñu koy defaree nga xamante ni dina génne gasoil bu nga xamante ni du nekk gasoil bu ñuy jël di ko def si ay oto ak yooyu waaye dinañ ko mun a def gasoil dinañ ko mun a def si ay centrale nga xam ne mun na créer énergie hmm. bu créer énergie boobu nit ñi mu doon courant bu nga xamante ni courant bu yàmbaambaay ñu ñu renvoyé ko si biir circuit bi hmm. ci ay chaudière ak yooyu moom mu créer courant bu am doole bu nga xamante ni mun nañ ko jox population bi wala jaay ko wala pomper ci ay forage ay mel noonu ci pàcc boobu rek déjà rek

ak niñ ko wara a doxalee ñu doxalee ko te ba tey nag hmm. mbëbës toogeewul yoon boobu gisuñu ñuy doxalee yoon boobu bu état bu ko fi monyu jële moo ñu gënal waaye bu dee fii la ko nañu taxaw wut ay jumtuka yi nga xamante mbalit mu ñuy lakk dañ koy bàyyi ndax saxar si day sonal nit ñi tey boo demee même péage bi booy jaar saxalu mbëbës bi daf la fay fekk boo da ngay gis kon ñun ñuy dëkkee ak wahum waxu waxu noppi bu mbalit yooyu ñuy jële fu nekk ko indil ñun mbalit momu war nañoo mën a saytu xool ba xam nan lañ ci ñi xëy ci am ci seen njëriñ jigéen yi waaye samba yi nga xamante ni ñu ngi si mbëbës ñu fexe ñooñu nu ñu fa jógee hmm. ndax waxuma la mbalit bi rek waaye risque bu nga xamante ni tey ñu ngi koy am ñun amoon nañ fi daaw suñuy xarit ku mel ni ay shingo si yooyu demoon fa di def ay reportage ak ay journalistes ñu agressé leen fa ndax bugguñu ku wane li fa xew hmm. loolu mu doon jafe nga xamante ni ñoom am na fa ay bërëb population Kër Massar kenn sañul dem ci bërëb yooyu loolu nag mun munta nekk mënuñoo dekk si suñuy gox ñuy taamu fu ñuy jaar ak fu ñu dul jaar ndax ragal ay nit ñu nga xamante

doxalinam mi ngi investir ay nit bokk na ci euh, ku ñu wax ab Ndoye ca nord ak euh, koo xamante ne euh, mooy Matar Meng ci zone sud ginnaaw tey bu ñu demee ba tey ñu dëggal ni ñooñu seen candidature c'est avéré te nga bokk ci yoon boobu noonu nan ngay def da ngay dëggal sa candidature wala da ngay plier wu ci volonté boobu waaw xam nga tey li nga wax noonu dañ koy rafetlu dëgg la tey eh, mouvance présidentielle ñu nga xamante ne ñu ngi liggéey ak ñoom ndax pour waxtaan wax tuuti rek xam naa duñ ci guddal li waral tax tey liggéey bi am. bi mhm. élection présidentielle di am candidat yi fi nekkoon ñëpp. muy waa mouvance présidentielle euh, président Macky Sall président Idrissa Seck président Ousmane Sonko président waa PUR ak ak président Madické Niang ñoom ñëpp. wax dëgg yàlla benn coalition kese moo ñëw set si suñu mouvement. Mm. mooy pro mooy coalition présidentielle APR Benno Bokk Yaakaar bi ñu ñëwee set suñu ne bëgg nañ ñu jàppale leen si élection yi ndax ñun suñu mouvement c' est un mouvement apolitique mosuñoo def politique man mii di wax ak yéen sumaa dugg ci parti politique aw ma carte parti benn benn aw ma carte benn parti politique. bi ñu ñëwee waxtaan ak ñun ñun ñu toog suñuy biir waxtaan ba ñu nekk ñun kat. nañu dem ànd ak ñoom comme que ñoom ñoo ñu sollicité. Mhm. ñu jàppale leen dem organiser leen meeting bu nga xam ne suñu alal lañ ci def ñun mouvance présidentielle ñu jox ñaar dërëm. Mhm. lépp looy dégg ni def nañ ko te defal ko mouvance mouvance présidentielle defal ko président suñu alalu bopp la. campagne bi bi ñu ciy dem suñu alalu bopp la ñoo defar suñuy t-shirt ñoo jël suñuy moyens jox ko suñu équipe ñu nekk ci terrain bi kon ci tënk rek suñu ànd bi noonu la sosoo. ñu continuer nag tàmbali liggéey bu nga xamante ni ñun dañ ciy continuer nañ ñun askan bi moo ñu taxa jóg lépp lu nga xamante ni dinañ jëmale askan bi kanam ñu taxawoo ci président bu joxee ndigal ci ay yenn yi lu mel ni wattu mbas bi ak yooyu yëpp ñu jóg ci def si liñ ci war a def mhm. pour ñëwaat ci question bi nga wax ni monsieur le maire euh, euh, Moustapha Mbeng jóg ne day investir ay nit man dama yaakaar ne sax yooyu ay caaxaan la ndax moom euh, du moom mooy investir mhm. buñ ne mouvance présidentielle moom déjà APR la bokk bu taxawee naan day investir ay nit ba suba muy naan day investir ay Matar Mbengue ak ay keneen keneen ñun yaakaar nañ lii ay caaxaan la te à la sa boo leen ma ko permettre damay ne kii dafa bëgg a fonto président de la république parce que président du fi nekk ne ñëpp nañ toog déglu ko ak yooyu moom mu jóg taxaw naan moom day investir ay nit si ay investissement yi nga xamante ni ay yaama neex la xool kii moom a neex ak affaire yooyu ñun nekkuñu ci loolu te moom li muy def nii moom kese la engagé ñun du moom la ñuy waxal moom du suñu interlocuteur ñoom seen kilifa mu doon ki nga xamante ni ñun kooku lañ jàppale woon kooku mooy suñu interlocuteur agriculteur kooku mooy li nga xamante ni ñun dinañ waxtaan ak moom mais ñooñu nga jot a tudd fii ñooñu bu dee ñoom dem nañ ba seen seen coalition ñu ne ñoom ñooñu ñoo leen di représenté lu mel ni au sud mm-hmm. ndax ñun Kër masaar suñu yitte ñun au sud la ñu décidé ni ñun dañuy dem élection au sud moom ñoom kooku ñuy wax muy Matar Mbeng ak yooyu nga xam ne dañ koy investir mm-hmm. président bu ko fi investiree na xam ni ki ñun dinañu dëggal suñu bopp dinañ dem élection man dinaa nekk candidat maire Kër Massar sud mm-hmm. te seen boobu dinañ duma daan ndax xam nañ li ñu fi liggéey liggéeyuñu ko ñun li ñu fi def ñoom defuñu ko ñun fu ñu sañ a dem ñoom sañu fa dem ñoom xam nañ ko waxuma la sa Matar Mbeng mais Moustapha Mbeng si boppam mi nga xamante ni moom mooy maire Kër Massar au sud la dëkk tey bu nekkoon candidat ñun dinañ ko duma daan ko loolu waa Kër Massar xam nañ ko boo laajee nit ñi xam nañ ko ndax ñoom ñëpp xam nañu kan mooy mouvement Kër Massar suñu yitte. voilà président donc ci euh, élection présidentielle comme ni nga ko waxee euh, da nga àndoon ak la dynamique unitaire benn bokk yaakaar fii ci euh, Kër Massar mais ba tey nee nga président Macky Sall ngay déglu mais tey. avec les élections, nu ñuy des élections fatidiques maanaam tournant là, euh, pour nous mën est-ce que APR le régime actuel dina continuer jiite Sénégal voilà, parce que amoon aussi en 2009 mu doonoon ben prémisse pour wax ni xamal ni ni Abdoulaye Wade dina ñak donc les futures élections tay ak choc ambition yi am au bureau euh, manam ci bir euh, mouvement présidentiel est-ce que yow do sentir ni tu ne seras pas victime manam ci euh, lolu manam est-ce que président du dem ba privilégier un gars de l'APR un politicien nek ci APR ki nga xamantene manam il est indépendant Donc, donte mom la jappalé waaw loolu sëñ Jiba li nga wax ni am na solo trop mais ñun dañ yaakaar ne politique dafa yegg fu nga xamante ni nit ñi doo ñëw rek nga imposer leen kenn ñun déjà ñun du ñu ay nit ñu nga xam ne dañuy imposer lépp lu ñuy def muy président muy keneen dafay doon lu nga xam ne ñun dañ koy waxtaane ndax ñun dañuy jàpp ni lépp loo def te boolewoo ñu ci kon dañu ko dañu ciy génnee du ñu toog di xaar ñu def dara ne ñu ñëw ne ñu lii lañ def ñun comme ni nga ko xamee mouvement bu indépendant lañ yor ñoom bu ñu jéemee def lu nga xamante ni waxtaanuñu ci bu ñu jubul ñun dañuy demal suñu bopp te tey au niveau national ay mu mel ni ay élection présidentielle ak affaire ñun suñu mouvement dañ ne ñun yooyu wax dëgg yàlla loolu yitteeluñu trop li ñu yitteel mooy ñun tey suñu gox suñu gox lan moo ñu yitteel lan mooy indi yokkute si suñu gox dëgg la munoo ne sa gox ba pare nga nga nga dummóoy lu nga xamante ni mu ngi am au niveau national nga dummóoy lu mel ni ay présidentielle wala yooyu mais dañ ne ñun fu mu toll nii tey Kër Massar am na ay jafe-jafe yu nga xamante ni wax dëgg yàlla ku sëgg si jafe-jafe yooyu dal nga leneen lu dul naan da ngay da ngay lijjanti ji luy xew au niveau national ndax tey boo xoolee lépp luy jafe-jafe fii si dakaar particulièrement inondation yi bu ñu koy tudd Sénégal Kër masaar moo tax et plus particulièrement Kër Massar Sud lépp looy gis si médias yi ñu koy tudd tey bu ma la limalee amul fenn fu nga xam ne jafe-jafe am na fi muy wàllu insécurité wàllu inondation wala yooyu lu nga xam ne lu dul Kër Massar Sud googu dugg ci yu nga xamanteni tay ambition yi yenn leader yi am au niveau national ay présidentiel ak yoy ñun au niveau local la waye li ma leen mëna assurer moy tay comme ni ma la wax ay nit la yu nga xamanteni ñu ngi doon liggéey ak ñom liggéey bi ba tey rafet na mais ñun comme ni ñu koy waxe ñun duñu ay ay al topé. maanaam tey du ñu toog ñoom ñu def lu leen neex jàpp ni ñun dinañ topp si loolu loolu mënta ne lenn daal xam naa ko te man koo wax ñun Kër Massar suñu yitte lu ñu liggéey fii si biir Kër Massar amul mouvement bu ko fi liggéey lu ñu liggéey si biir Kër Massar amul parti bu ko liggéey fii tey bu ma jëlee ci wàllu ndox rek def nañ fi juróomi forage yu nga xamante ni ak suñuy partenaire forage bu nga xamante ni benn bu nekk jar na 15 millions loolu rek boo k évaluer c'est presque 75 millions boo jëlee ay wàllu teen def nañ fi 45 teen maanaam ñeent fukki teen ak juróom yu ànd moto pompe teen yi dañ koy karala defal ko yëpp tey boo boo toogoon xayma ci ñetti at yi Kër Massar suñu yitte lu mu indi si biir commune bi

ay ay Africa ak yooyu maanaam ñu am ay partenaires yoo xam ne wóolu nañ ñu nangoo liggéey ak ñun nangu lu ñuy def biir Kër Massar ñu ñëw defante ak ñoom tey na la benn mouvement wala benn parti si biir Kër Massar na la wax ni liggéey na fi indil na fi askan bi lu ëpp téeméeri million amul kenn ku la koy wax ñun xam nañ ko kon nag ñun bu ñu demee ba liggéey loolu am crédibilité boobu ndax amul kenn ku nga xamante ni dinañu duut baaraam ci lu nga xamante ni lu jubadi la wala alalu askan wala moomeelu askan bu nga xam ne laal nañ ko mosuñoo laale leen lu dul rek saa su ne jóg di taxawu askan bi bi fi mbënn mi ñëwee daaw ñu indi fii ay don valeur 8 millions maanaam ay don yu nga xamante ni joxe nañu 200 kit lépp mu ngi sa internet kit bu nekk valeur trent cinq mille francs moo ci nekkoon mm-hmm. ren ci weeru koor bi ñu joxe ay deux cent kit valeur cinq valeur cinq millions ñu maayaat ko askan bi mbënn feebar bi bu mu ñëwee daanaka amul fu ñu pulvériser wul surtout poste de santé ak yooyu ñu jël ay appareil lave yi nga xam ne benn bu nekk mat na li ñu koy jaaye mat na ñaar fukki junni jiba jaaw xam na inventeur bu ko defar suñu xalit Mamadou Saliou ñu joxe ko daanaka ci bërëb yu bëri ak mm-hmm. leneen ak leneen ak leneen nga xamante ni tey formation ndaw ñi weer bi weesu rek la ñu jongal téeméeri gune ak juróom benn nga xamante ni lii mooy ñetteel édition at mu nekk dañuy jël gune yi jongal leen seen waajur yi di ñu jox dara même yëre njulli ñun ñoo koy defar ma création mi toog ak suñu mbokk saer hmm. ñoom ñoo koy faral di defar kon ñun saa su ne ñu ngi taxawoo askan bi ñoo ngi xool luy njëriñ askan bi ñu def ko ñun nag nekkuñu mouvement bu nga xamante ni dañuy wax ñun jëf lañ ñu gën a xamee ndax ñun dañoo gëm développement maanaam tey boo jëlee jigéen ñi dañ leen di former jël ay jumtukaay jox leen tey jënd nañ ñetti moulin yu nga xamante ni dañu jël ay groupement de femmes ay jigéen jox leen jënd fuuru mburu jël ko jox ko ay jeunes ñu ciy liggéey kon ñun yemuñu ci wax rek benn ñu ngi dimbale nit ci wàllu social wàllu dund mi wallu paj mi ak yooyu waaye yemuñu foofu weesu nañ foofu tey fi ñu toll mooy wutal ndaw ñu xëy mooy fexe mbe ndaw ñu jigéen ñi mënal seen bopp ndax ñun dañoo gëm ni jël ay saako ceeb jël soble ak yooyu di ko maye loolu fajul dara ndax weer wala semaine nga lekk ko mu jeex mais nga fexe nit ñi ñu am si lu ñu jàpp nit ñi am seen dignité ñun ci orientation boobu lañ bëgg a yóbbu waa Kër masaar nañ xam ni ci tey dëgg la jafe bari na fi mais ñun mën na mënal nañu fajal suñu bopp suñuy problème tey ñu ngi jooy mbënn mi ak yooyu xam naa bu ñu ci ñëwee mais mu doon ay jafe-jafe yi nga xamante ni ñun xam nañ ni dëgg la moo ngi fi waaye ay solution mu ngi fi Kër masaar am na ay doomam yu nga xamante ni mate nañ lu ñu war a mat war nañu taxawoo taxawaay bu ñu war a taxaw si fànn boobu. Mhm. Euh, di wax ba tey ci wàllum élection ak euh, li nga xam mooy respect calendrier républicain euh, ñu gis nii def na ñaari at. daanaka ak lu teg maire yi seen mandat jeex na mais ñu ngi toog ba tey élection amul ñi ngi fayeeku ñu ngi dem ñu ngi def seen i fonction comme si ils ba léegi légitime loolu nan nga koy jàngatee. non ñun de dañoo jàpp ni xam nga comme que ay ay këyit ñu ay texte ñoo leen régir ak yooyu. ñun jàpp nañ ni rapport ay élection ak yooyu wala dëgg yàlla Sénégal war na ko mun a weesu. tey dañoo war a mun a fexe lépp lu ñuy def ñu mën a respecter calendrier électoral bi. am na ay gox yu nga xamante ni maire yi fa nekk wax dëgg yàlla kenn bëggatu leen nañ ko waxte dee rek. ñun suñu maire bi nekk fii bu ñu defoon élection jëlee nañ ko fi bu yàgg ndax population bi maire bi sañul génn fenn taxaw day wax ndax daf ñoo liggéeyul. lig amul lenn lu nga xamante ni liggéey na ko fi mu am yeneen gox ak noonu ak noonu ñun jàpp nañ ne nag rapport ay élection ak yooyu ñun de loolu de ñun bu ñu sañoon du am moo tax fii gisoon nga sa population Kër Massar jógoon nañ benn jamono naan dañoo bëgg délégation spéciale loolu yéen ñëpp déggoon ngeen ko ak yooyu ak yeneen gox yu nga xamante ñu ngi si biir Sénégal jàpp nañ ni bu ñu falee nit nekk dañ koo fal pour juróomi at nañu fexe bu juróomi at yi matee loolu nga xam ne dañ koo jëflante ak askan bi nañu xam ni lu ñuy def dañ ci war a boole askan bi. Mm. askan bi mooy lépp askan bi mooy njeexitalu lépp. manees na loolu bu ñu koy respecté sax dina tax askan bi gën a naw bu baaxul di politique bi sax loolooy tax léeg-léeg askan bi boo waxee politiciens yi rek mu am baat bu ñaaw bu xam ne dinañ ko teg mm. maanaam naan ay nit la ñu nga xam ne lu ñu wax duñ ko jëfee te loolu aussi ci la bokk rapport. élection ya ak yu demee ni neen ak yooyu nañu góorgóorlu daal ba suñu démocratie loolu doon lu nga xamante ni dina ko gën a dëggal dina ko gën a gën a gën a dëgëral ñu fexee yu mel noonu ñu góorgóorlu si ba élection saa yu jotee ñu fexee lu ñu mën di def rek dañu organiser ko askan bi tànn ñu ko gën a pour mu diriger leen bu dee ki fi nekk nit ñi jàpp nañ ni ba tey wóolu nañ ko ñu jox ko lengee ñu continuer bu dee jàpp nañ ni liñ ko dénk nit ci doon xaar def ko ñu tànn keneen nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, coow du ji. Mm-hmm. mais ñun jàpp nañu loolu du lu gën lu ñuy rafetlu te ñoo ngi ñaan yu mel noonu ñu taxaw ci daal bu baax a baax. Mm-hmm. ndax bokk na ci ay critères nga xamante ni démocratie Sénégal bi tamit bu mu doon loolu dañ ko ciy nàkkee. Mm-hmm. te lépp lu nga xamante ni rek mun naa indi lënt-lënt wala lëndëmal wala gàkk-gàkk si suñu démocratie rek. nañu fexe ba nga xamante ni daal mën nañ koo dàq ndax am na fi dàq bu nga xamante ni ñu koy def jegewaay bu mu amoon ak élection ak yooyu waxoon nañ ko même bu dee loolu xel war na ko mën a nangu ndax ko ci kaw bi mënoon na métti bu ñu boole woon def waaye nañu fexe yu mel noonu kooku calendrier yëpp xam nañ ko à l'avance ñu xool ba ñu mën a. mais président rapport yu bari yi tamit est-ce que du aveu d'impuissance maanaam télé ci wàllu côté nguur gi wala aussi est-ce que tamit defuñu ko. pour que ñu gën a préparer élection yi maanaam ñu xaar ba moment bu gën a opportun moment boo xamante ne jàpp nañ ni fi mu ne nii euh, vraiment seen opportunité la ñu soog a organiser élection yi waaw man lay si seen jafe-jafe man lay lenn de xam naa ko ñu bëri bu ñu wax dañuy ne ñoom dañoo jekkoogul dañoo jekkoogul moo tax ñuy pousse ay mm-hmm. mais man yaakaar naa ne ku ñu jox juróomi at pour nga liggéey bu dee ci juróomi at yooyu yow jekkoo pour nga mun a gañe ay élection mm-hmm. yaakaar naa bu ñu la yokkaloon ñetti at loo deful ci juróomi at yi doo ko def ci ñetti at mm-hmm. li preuve bi rek ñun dañuy jël ci li nga xamante ni ñun moom la ñuy dund tey ñun ñu nekk nii juróomi at ñoom ñu fi liggéeyul ñaari at yi toftalu ci seen bi jotuñ fi liggéey dara hmm. fi ñu toog nii am na kenn conseil au maire euh, conseil municipal la mu ngi fii ci biir salle bi hmm. xam naa ni bu ñu génne ci dina ma dóor hmm. mais conseil municipal bu Kër Massar mais amul lenn nga xamante ni daanaka teg na ko fii ci biir Kër Massar juróomi at yu wees yokk nañ ci ñaari at mais amul leneen bu nga xamante ni liggéey nañ ko liggéeykat daal soxlawoo ñu lay dolli pour ngay liggéey ndax liggéey dafay tàmbali bés bu la falee mhm. balaa ñu lay fal sax da ngay tàmbali ñun ñu ngi nii ñoo ngi yóotu mairie Kër Massar waaye yàlla walaay ak Aziz ñu leen waxoon projet am nañ ko ñu ko bëgg a doxalee ak ñan lañ ko bëgg a doxalee ñu bëri dëkk nañ ko ba toog di xaar lu dul tey rek bu askan bi nangoo jàpp ni ñun doy nañ leen ñu jox ñu ko Mm-hmm. dañ koy doxal boo toogee at wala ñaari at war ngaa mën a toog ak askan bi ne leen def naa lii def naa lii mm-hmm. waaye kuy liggéey daal du toog di xaar te jàpp nañ ñoom loolu ñuy pousse bu dee dañ koy def pour gën liggéey dañuy nax seen bopp ndax ku mm-hmm. liggéeyu juróomi at bi ngay mën a liggéey jàpp naa ni ay yeneen jafe-jafe yi nga xamante ni manees naa am ñun xamuñu ko mooy waral ñuy def noonu mais bu dee ñoom li leen ñii ñi di jiiñ ñi dañ koy def pour gën a defal wax dëgg yàlla dañ dañuy nax seen ndax ñooñu ñu koy defal couleur boo xamee ndax ñu nekkee président en tant mouvement ko moom moo leen proposé mm-hmm. mu jox leen juróomi at liggéey nañu ko bu leen dolli loon juróomi at yi duñu def dara ndax ñu ci ëpp dañoo tëlee dañoo mënul euh, président yow euh, da nga bëgg samp sa ndënd ci élection yi wala bokk bëgg nga see dem mais tey ngir ñu voteel la tey ban programme nga bëgg a jaay euh, les population de Kër Massar ngir espérer briguer seen i suffrage waaw jërëjëf sëñ Diop dañ lay ñun Kër Massar Sud dinañ nekk candidat Kër Massar Sud bu soobee yàlla ci yi di hmm. ñu ngi tàmbali d' abord ñun suñu programme bi li nga xamante ni sànq bindu nañ ko li nga xam ne jox nañ ko liggéey. Hmm. ñetti at ñu ngi ak population bi am proximité ci population boo xamante ni tey kenn laam-laamee wu ñu Kër Massar Sud liggéey liggéey na Kër Massar Sud liggéey def na fi ay jéego yu nga xamante ni. ñu ko limee tey ci wàllu investissement ci wàllu ay moyens ak leneen ak leneen lu nga xam ne dugal nañ ko ci gox bi bu matul 200 millions yi jege na ko ci biir ñetti at ñetti at te yoruñu ndongo tànk nguur yoruñu lenn lu nga xamante ni ci nguur la soxee ko mhm. bu loolu weesoo ñun dañoo jàpp ni tey jafe-jafe yu bëri ñu si biir population bi mhm. ak yenn taxawaay yi nga xamante ni commune war na koo taxawoo ay population ñun yaakaar na ñi ñu fi xamuñu ko moo tax tey ci tënk rek. Mhm. tey pàcc boo laal ci wàllu développement bu mënoon nañ ci wax tey ba suba. Mhm. ñun dinañ la ci tënkal ñeent rek wala ba juróom yi nga xamante ni tey nañu tàmbale ci mbënn mi mbënn mi nga xamante ni tey ndox mi dafa sonal waa Kër Massar ndox mi tey képp kuy wax daanaka ñaari weer yëpp waa Kër Massar amuñu jàmm amuñu salaam nguur bi def na ci nee nañ euh, presque ay fukki milliards ak juróom. lañ ne def nañ ko fii dëgg la gis nañ ay canal gis nañ mais dafay ndox maa ngi ci jafe-jafe bàyyi ndox dañoo jàpp ne ñun am nañ ay pexe yi nga loolu dañ koy waxtaanee ak population comme ni ñu ko waxee ñun lépp lu ñuy def dañ koy defandoo ak population hmm. problème mu ndox mi ñetti ndox mi d'abord saa yu ñu ko pompé dañ ko yóbbu ci forêt bi duñ ko doyee leen lu dul yóbbu ko ñëpp xam nañu ndox moomu ndox moomu war nañ ci mën a liggéey lu bëri balaa ñu ko yóbbu géej tey ndox moomu war nañ ci mën a yar ay jën bu ñu demee am na lakk bu nekk ci forêt bi ñu koy yóbbu dañuy yaatal lakk bi nga xamante ni ndox mi dootul soxla ñu yóbbu ko mbaaw di ko yóbbu géej dinañ ci def ay pisciculture maanaam yar jën yi nga xamante ni ndaw ñi lañuy jël leen def ci ay bassin yu bëri ñu yar ci jën benn war nañ ci mën a def horticulture maanaam ñu ñu ay salaat ay soble ay yeneen yu nga xamante ni gàncax bépp gàncax boo xam ne hmm. war nañ ko fi mën a ji ndax suñu ndaw ñi amuñu xëy suñu jigéen ñi amuñu xëy te loolu bu ñu ko defee ci biir forêt bi samba boy yi doon nekk si forêt bi dañuy daw génn forêt bi ndax forêt bi dara dafay nekkul. Mhm. moo tax ñu toog fa te ñenn ñi samba boy yi sax suñuy doom lañu suñuy mag lañu suñuy rakk lañu dañ leen war a récupérer ndax manees naa am ñoom yi li ñu nekk gënalu leen waaye bu ñu gisee lu ko gën war nañoo mun a waxtaan ak ñoom tey ndox moom. man jàpp naa ni mun nañ fi def mini parc bu nga xamante ni dinañ par yar ay yenn xeetu mala lu mel ni tey ay en tout cas ay ay crocodile nañ ko fi ay ay mbonaat mun nañ ay yenn war nañ ko fi mun a indi pour indi tourisme mhm. nga xamante ni loolu ndox lay soxla fépp fu mu nekk te ndox nekk pare yu mel noonu war nañ koo yar ñu sécuriser ko ñun ak ay institution état ndax waa eaux et forêts ñoom yi benn ñu liggéey nañ ci ci agriculture comme ni nga ci war def nañ ay champs pour ay périmètres horticole ak yooyu. Mhm. yar nañ ci ci ay jën def nañ ci ci wàllu pêche yooyu. def nañ ci ay ay ay systèmes yi nga xamante ni tourisme bi mën na dox foofu ak yooyu bu boobaa tamit def fa ay lu mel ni ay cantines yi nga xamante ni pour antiquaires yi nga xam ne dañuy jaay ay objet d'art yooyu mun nañ dem sa benn ay péniche ay gaal yu ndaw yi nga xamante ni. ay lu mel ni ay restaurant flottant la ñuy nekk ay guddi sax nit war nañ faa mën a dem restaurant yooyu na ñëw nga reer waa acteur culturel yi gis seen bopp mu am orchestre bi nga xamante ni dina toog si péniche bi muy wëy jibaa ñëw ak seen jóob ak waa defes ngeen ñëw daal di reer toog waxtaan gaal bi dem ci ñëw bu ñëwaatee yéen ngeen wàcc ñeneen yëpp ndax loolu lu war a mën a ne am na ci ay réew yoo xam ne gis nañ ko fa tey ci wàllu ndox moom jëfandiku ndox moom hmm. léegi nag buy yóbbu ndox mi ndox ñëpp xam nañu tey li ñuy ñaan am ay canalisation mu am na yoo xamante ni tey i du ñu def langue de bois maanaam ñëw ne askan bi bu ñu paroo dina ci jëlee ndox mi. Hmm. am na lu nga xamante ni mairie mënu ko am na yenn infrastructure yu mag képp ku taxaw ne askan bi mën naa ko day ndax askan bi te ñun toogeewuñu noonu. waaye du tey état bi dina def ay canalisation yu mag si yoon yu mag yi mais dina am ay xur ak ay bërëb yu nga xamante ni canalisation yu mag yi mënu ko dugg ndax xat-xat bi ak lotissement yi mu demee si biir Kër Massar ñun dañuy jàpp ni loolu mairie moo ko war a def mhm. mairie moo war a def ay canalisation yu ndaw te canalisation yi li ci nekk dama lay wax maanaam dootuñu utiliser ay béton ak ciment bi mbuus yooyu ñu doon wax ak ñu mel noonu la ñuy woo ASC yi nekk ci koñ yi ne leen nañu gas yoon yi ndox yu ndaw yi canal yu ndaw yooyu di mbuus yooyu lañu jël ñu ko ndax am na inventeur bu nga xamante ni inventé na système bu nga xamante ni tey ci yoon yu bëri moom ak ONAS ñu ngi liggéey fi ñu daan def ay fer yi nit ñi daan sàcc di ko def ay ay ay ferraille yooyu. Hmm. tey daf ko remplacé par ay matériaux yu nga xam ne du fer

mais ñu ko ak des matériaux récupérés du am benn kilo ciment bu am ci matériaux yi lu am la ndax prouvé nañ ko ba pare. ay invention la yi nga xamante ni dañ ko protéger ndax man sama xam-xam ci loolu la mhm. kon ñun ndox mi léegi nii dinañ fexe si yenn bërëb yi ndox mi dinañ ko ko jëlee yóbbu ko si canalisation centraux yi buñ ko ko yóbboo. canalisation yi état defar ndox mi ñu yóbbu ko ci àll bi mm. waaye ñun feneen fu nga xamante dinañ ko taxawoo mooy ndox mi bu demee ci forêt bi ñu jéem koo jëfandikoo ndax ñun suñu xol dafay metti lool mel noonu ak importance bu mu am ñu koy jël di ko sànni ci àll bi tey xoolal la tey bu ñu demoon di béy horticole euh, euh, matériel yooyu yëpp ñu koy béy li liñ fay jël mais mun nañ ko jël sama service de mairie di créé ci biir école primaire yi ay cantines scolaires ñuy jël soble yooyu ñu jël tamaate yooyu pomme de xam ne bés bu nekk dinañ toggal xale tey bu ñu nee borom kër yi seen loxo jotul seen ginnaaw jàppale leen tey mooy jàppale seen i doom ndax seen doom ñooy seen avenir ëllëg hmm. xale bi bu ñëwee mu war a mun a añ même bu dee dafay ñam rek mu mun a continuer jàng moo gën mu ñibbi fekk ay waajuram ñooñu topp ñu ndax jafe-jafe yi àdduna ak yooyu hmm. pourtant ñooñu mënoon nañ leen toppatoo ci école bi ñu mën a jàng ëllëg ñu tekki mu doon seen i njëriñu waajur waaye njëriñu Kër Massar ndax plus ñuy am ay ndaw yi nga xamante ni dinañu tekki dina doon lu am solo te loolu mooy pàcc bu njëkk bi nga xamante ni ndox mi sonal na nit loolu ay xalaat la yu nga xamante ni nekkuñu rek di rey rek yooyu bu mën a mm. ne la te ñun am nañu jumtukaay yu koy defare tey ñu dem ci wàllu faj mi mm-hmm. faj mi tey dañuy ne c'est une compétence transférée maanaam tey nit ñi lan la ñuy def mairie yi dañuy ñëw li nguur doon def la ñuy jëm a defaat mm-hmm. ñun jàpp nañ ni tey dëgg la dañ war a jàppale tey ñu yokk sanitaire bi au niveau Kër Massar mais am nañu lu am solo lu nga xamante ni ba tey dañ koo négligé maanaam suñu fajum cosaan suñu fajum so cosaan am na fi feebar yu bëri yu nga xamante ni ci gën a sonal nit ñi foofu ñu jëm koo dooleel te dooleel fajum so cosaan bi jafewul mm-hmm. maanaam ni ñuy ñi fi ñuy faj ay matériel lañu soxla tey kuy defar ay xas di la jox ay reen ak yooyu bu sañoon dafay def mu nekk pëndëx nga xamante bu ñëwee dina la ne jëlal benn kudd wala ñaari wala ñu dem sa ba def ay sirop yi nga xamante ni bu dee pharmacie yi nanguñu koo jël ñun si suñuy biir hôpital ñu am ay garab yi nga xam ne seytu nañ ko xam nañ ni lii baax na ñu mën ko faa jaay ci biir hôpitaux yi ku bëgg nga jënd garabu nasaraan bi ku bëgg nga jënd ñun suñuy garab ci fajkat yi nit ñi dinañ mën a gën a taxawoo seen kii waaye dinañ mën a taxaw wér gu askan bi mais man dama jàpp ni tey boo demee ci wàllu compétence transférée ñun bu ñu jàppee ni suñu rôle mooy nekk di tabax ay hôpitaux wala yooyu dëgg la lépp loo ci man boo mu nee def ay poste de santé ak yooyu war nga ko def waaye war ngaa mën a jéem xool lu nguur gi man ka def wala lu nguur gi deful yow si sa spécificité sa commune ndax hmm. ñun hôpital traditionnel bu Kër Massar mu ngi fi jege ñu am ay fajkat yu xarañ yu fa nekk ñu loolu lan la ñu indi comme différence par rapport ak commune bu mel ni HLM Grand Yoff wala feneen nga xam lii kon ñun bu ñu amee lii suñu localité am lii tey décentralisation objectif am mooy tey commune bu nekk nga xool lu nga xamante ni tey yow looloo la gën a jël bu ñu demee ci wàllu njàngale bi tey ñun dañ jàpp ni njàngale bi am war nañ ko xoolaat ñun de commune bu ñu gagné mairie bi njàngale bi dinañ ko xoolaat ndax bëgg nañu mhm. tey lu mel ni technique lu mel ni pratique ñu dugal ko si njàngale bi lu tax ma wax loolu tey lu mel ni tey bu ñu ko mënul commencé si école primaire waaye école secondaire bu nekk si suñu commune ñun bu ñu gënee mairie dinañ fa def ay atelier yu nga xamante ni ku bëgg a def mécanique ku bëgg a def soudure ku def bëgg a def bu may wax mécanique mooy mécanique jamono yi léegi nga xamante ni mu ay mhm. ay ordinateur ngay jël branché mu wax la lépp lu nekk panne ci oto bi mhm. ñun dañoo bëgg xale yi ñu tàggat leen ci ñu loo yu gën a ubbi seen xel mhm. ndax entrepreneuriat bi ñuy wax entrepreneuriat nit du ko judduwaale waaye nit dafay màggaale loo màggaale boo demee bi am sa maîtrise am sa licence ak yooyu ñu ne la dañ lay former tàggat la pour nga nekk un entrepreneur yu si ëpp dañuy échoué lu tax mosuñoo sóor loolu ñoom dañoo jàpp ni bu ñu liggéeyee bu ñu jàngee dañuy dem ci bureau toog hmm. sóoruñu loolu ñun dañoo bëgg suñuy ndaw bi ñuy tout tànk la ñuy jël di leen tàggat di xool nan lañ leen di taxawoo mën nañ sa yaatal ba ñu nekk ci ndongo daara yi hmm. nga xam ne ñoom it suñuy doom lañ ñoom yi si population bi la ñu bokk ay samedi ak dimanche nga xam ne atelier yooyu ñun école bi wu ko ñii leen di tàggat ñëw jël ndongo daara ñoom yi ñuy jàngal nga xam ne kuy def mécanique di nga même bu dee deux heures de temps la si semaine di nga ñëw xam hmm. oto nu muy doxee nan lañ ko defaree atelier bi nga xamante ni ordinateur yi fa lañ nekk dinañ ñëw ubbi ordinateur nga xool li ci nekk ak yooyu ndax développement ci ndaw lay tàmbali. kenn mënut a jóg bëgg a ci kaw ci ndaw ñi ngay tàmbali. jërëjëf moo tax ñun suñu enseignement. Mhm. néew ñu ni dinañu changer li fi nguur gi def waaye ñun suñu mairie ñun ñooy indi lu nga xamante ni nguur gi def ko nguur gi euh, xalaatagu ko ñun ñu dugal ko ci. du nekk enseignement professionnel ndax. du bokk si cursus bi waaye surplus lay doon ba nga xamante ni ndaw ñi classe bu nekk dina am deux heures temps bu nga xamante ni xale yi dinañ ñëw dugal seen loxo. Hmm. xam ni ki lii tey ne serait comme ni ñuy wax ingénierie inverse ñu ñëw jël benn ordi téléphone portable. Hmm. ñu jël ubbi ko wan leen téléphone bi lii ak lii ak lii moo fi nekk noonu la ñuy xale yi noonu la ñuy amee lu nga xamante ni ëllëg ñooñu dinañ nekk ay chercheurs dinañ nekk ay inventeurs dinañ nekk ay innovateurs. Hmm. waaye dinañ nekk ay entrepreneurs. loolu boo ko weesoo ñu dem tey si développement. ñuy wax wàllu emploi emploi doon lu xamante ni jafe-jafe yu tar la ci nguur bi am. Mm. waaye dëkk àddina yëpp am loolu nga xamante ni jeunesse bi tey dañoo am jafe-jafe pour am liggéey ñun gëm nañu si suñu commune incha allahu rabbi lu ci gën a bëri ci loolu ñu dinañ ko saafara. Mm. ndax am liggéey. état mënut a recruter ñëpp ñëpp mënuñu dem ci liggéeyu état lu ëpp si liggéey. ci privé la mun a nekk à travers l' entrepreneuriat et l' auto emploi mais ñun dañu jàpp ni auto emploi bi dëgg la nguur gi mu ngi ciy ay jéego waaye am na pàcc bu rëy bu nga xamante ni collectivité territoriale yi ñoo ko war a yor. lu mel ni tey jëlal jigéen ñi ñuy def ay araw kon boo dem jigéen ñi ñuy def araw bu ñu koy def kan lañ koy jaay pour ñu am araw de qualité sax ay jafe-jafe la tey lu tax du ñu fexe jël. communes yi jël groupement de femmes yëpp ñu boole leen ñu nekk benn GIE bu mag bu nga xamante ni ñoom ñooy bokk ñu ber leen ñii di def araw hmm. ñii di def ay tigadege ñii di def ay café touba ñeneen ñi di def ay kénkiliba ak yeneen ak yeneen ndax ñun tey dem nañu fekk benn entrepreneur mu amoon projet bu nga xamante ni Youssou Diop concept Al Khalifa. Mhm. muy jël kénkeliba di ko jaay. ñu ñëw waxtaan ak moom mu ne man de bu ma sañoon. Mhm. kénkeliba bi dama ko jël def ko poudre mel ni Lipton. Mhm. ma jël di ko defar di jaay ndax kénkeliba bi moo ëpp ay vertu Lipton. macha allah suñu mouvement ñu ñoo ñëw. jël suñu alal.

tey bu ànd ak man mhm. yëpp dafa ay produits yu nga xamante ni tey euh, lu nga xamante ni mouvement bi moo taxawoo liggéey mhm. ba tey ñu yegg fii nga xamante ni tey lii Kenkeliba lañ ko defaree mhm. tey bu ma wanee ma wan la produit benn nu mu mel nan la mel nii la mel am nga ni lii tey amul lenn lu nga xamante ni lii mën nañ ko yóbbee ñu defar Lipton tey boo kiyee ñi fii lañ ko defaree lépp ay ndaw ak ay jigéen ñoo ko liggéey tey am yeneen gàncax yu bëri yi nga xamante ni tey ñu ngi si fii si biir Sénégal dañoo war a jóg ñu taxaw tey ñun dañoo bëgg suñu jigéen ñi dinañu fexe yenn yi ñoom ñoo koy defar tey xalaat nañu café Touba bi ñu fexe ba mu mel nii ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xamante liggéey yi ñuy wax dootuñu yem rek ci ay defar araw ak yooyu dëgg la baax na hmm. mais dañuy diversifier kon ñun gëm nañu am nañu ay fexe yi nga xam ne suñuy ndaw dinañ am liggéey suñuy jigéen ñi dinañ am liggéey te loolu yëpp lu koy yombal après ñun dañuy créer si suñu biir commune. Mhm. benn structure bu nga xamante ni jumtukaay bu ñu soxla moom moo koy defar. exactement maanaam ay peel ay buret la bu nga xamante ni ak artisan yi ndax développement Sénégal ñu dañoo gëm ni artisan yi ñooy war développement Sénégal jërëjëf te képp ku loo soxla bi nga ci am mhm. jumtukaay boo xalaat mhm. mënees naa am yow yaa ko gisul mais artisan Sénégal yi bu dee defaruñu ko boo ko wane ñu defar jërëjëf ñu gëm nañ suñu commune am nañ programme bu nga xamante ni lu mën a nekk la ñun du ay wax lañu fi nekkee mhm. waaye ay programme de développement lañ leen nar a tegal te tooguñu xaar ba yor nguur yor commune bi mhm. pour def ko tàmbali nañ ko ak suñuy moyens mhm. te ñoo ngi ciy continuer te lu dul yàgg rek bërëb juróomi million yu nga xam ne yeneen xeetu gàncax la defar bu soobee yàlla ci lu dul yàgg rek am nañ yaakaar yéen di ngeen ñëw tax ngeen teewee loolu incha voilà président dégg nañu programme bu am solo bi nga ñu wax léegi mais ba ñu dellu ci côté élection parce que nee nga sànq di nga samp voilà donc bëgg nañu xam nak ci yan anam manam euh, sur quelle bannière mouvement Kër Massar Sama Yitte déjà dégg nañu benen mouvement presque identique moy mouvement Kër Massar euh, Sama yité nga mantene c'est un certain euh, Mamadou Ba au nord dégg nañ ko temps voilà à la à travers la presse tey yan éclaircissement nga ñu mën indi par rapport ak lolu mais aussi bëgg nañu xam vraiment est-ce que Abdourahmane Fadi Diallo il est prêt vaille que vaille même fait que day def cavalier seul vraiment pour me briguer la commune de Kermansar Sud. waaw xam nga ci élection yi ci yan fànn wax nga ko ñun ci coalition la am mm-hmm. coalition bi ñu ngi waxtaan ak suñuy nawle mm-hmm. ndax tey Sénégal élection surtout notamment élection locale mm-hmm. képp ku jóg nga ne yow kese da dem si élection yow kese da nga koy gagné new mënul nekk waaye du doon lu yomb te tey nit mënut a jóg ne man bëgg-bëgg bi ma am si askan bi wala yéene bi ma ci am wala programme yi sama bopp kese moo ma doy xam nañ ni tey ñu ngi waxtaan ak ay yu bëri ñun moom incha allahu si élection yi tey benn coalition bu a xam ne pare nañ doo dégg fenn pour la ne ñu pare nañ kii mooy suñu lañ investir kii ñu fay taxaw ko ñu nit ci processus boobu lañ nekk lu ñu leen mën a wax rek mooy Abdourahmane Fadi Diallo mi nga xamante ni Kër Massar suñu yitte ñoo ko proposé mm-hmm. ndax man jóguma ne damay nekk candidat mm-hmm. Kër Massar suñu yitte ñoo toog waxtaan ne ñun kat élection yi gis lu ñu nga xamante ni jëm nañ ko ndax daaw lu ñu gënoon a métti daaw dañ amoon ay camion gravats bëggoon ko indi si biir dëkk bi mm-hmm. téeméer camion gravats topp nañu mairie bi pour mu may ñu autorisation ñi di camion yooyu mun ko sotti ci yenn bërëb yi nga xam ne am na ndox mhm. ñu daal di ñu tànqamlu mu am ay jamono ay éclairage public yu jënd nañ ci ëpp ñaar fukki lampe ak juróom valeur 700000 ñu def ko si ñetti quartier te boo demee quartier yooyu boo vérité ñu wax la Minam Gaban Medina Kër Massar ak quartier bu bu bu imam imam si mhm. ñetti quartier yi dend yooyu ñaar fukki juróom lampadaire yi fa nekk Kër Massar suñu de monter ko population pour lutter insécurité bi wax <laughs> mais ñu gis maire bi indi ay comme dañuy am ay am nga dañ a de bi ñoom ñi ñu de de ay ñu de kon ñu de taxaw ñu leen wax ñu ngi ci ñu ngi de ay ay ay ay ñu ak ay parti ay mouvement mm. mais waaye bu dee ñun kese sañoo naan def dinañ def mais confusion bu bu tax ñu wax mouvement Kër Massar sama yitte xanaa kooku yaa ko wala nu mu demee noonu est-ce que mhm. mhm. yàlla nit la mhm. yow lu mu daj xamoo nga ñëw rek jël lu mu jël nga bëgg mu koo ndax monsieur Baboo élection présidentielle dafa amoon mouvement bu nga xamante ni deuxième mandat amoon mouvement takku amoon nu mu tudd ci fàtte naa ko bi mais en tout cas dooleel Macky pour mu am deuxième mandat mouvement bi dooleel Macky bu ñu ci pour mu am deuxième mandat xam nga mu sa mouvement bu tuddee loolu bu doon mouvement politique boobu Amadou Ba moo ko doon jàppale

ci def mu bind lettre Kër Massar suñu yitte boobu moom mu yor mouvement bële donc bind na lettre au nom de son ancien mouvement benn ñu ñëw toog ak moom mu wax ñu mu ne ñu bëgg na ñu jàppale ko si journée yi ndax dégg na wax dëgg yàlla taxawaayu mouvement Kër Massar suñu yitte te moom ko doon jaaree ci soxna Fatou Diawo moom la joxoon lettre bi ñu ànd dem ci seetom keroog mu woo staffam yëpp jeunes yi jigéen yi ak yooyu keroog sama amoon fa suñu benn soxna bu nga xamante ni yàlla dafa muuri ay bëtam mais mu doon ko nga xamante ni passé pour loolu keroog fa la nekkoon ci réunion presque 23 heures mais amul benn yoon bu naan bëggoon na dem pour firmel ni ndaje boobu amoon ni ñu dem ba élection ouest de président Macky Sall falu mu dem ba toog ba jël benn jamono kenn déggatu ko kenn mu xam ni kii daanaka moom li mu doon def naxasaay na way eh, xol na muy jógaate mu xol tour bu nga xamante comme ni ko waxee dama xaatu ñuy te moom liggéeyam ñu ko xam luñ fi liggéey bu wanee lu ñu liggéey du président bi kese bu membre yi kese xam nañu ay partenaires waaye Kër Massar fi ñuy jëm lu mu def fii amul mouvement bu nga xamante ni def na ko mu jàpp ne day jël turu mouvement ko bi ñu ko tàmbalee nag am suñuy nit ñu nga xamante ne ñoom Aliou Sow yooyu wax ma ko ak Ibra Gaye ak ma woo ko ndax xamoon naa ko am naa man ma ne ko ba dégg naa ni lii ak lii ngay mu ne ma dëgg man xam naa ko mu maanaam dalal naa la waxtaan ak yow sàkku naa nga nga jàppale ci yenn mais sama yitte ak suñu yitte bokkul ma ne ko sëñ ba li ngay wax xanaa da nga koo xamul mu ne ma noo xam naa ko ñaari bokkul ma ne ko loolu mooy mooy mooy mooy mooy loolu ngay def noonu ci nasaraan dafa doon lu nga xamante ni dañu ne contrefaçon contrefaçon la parce que dafa mel ni comme ñii di defar dàll def moo publicité ngeen baal ma mm. nga gis defar katu dàll mu am marque bu mag ñu koy woowee adidas adidas yow nga dem nga jël dàll bi dee bi nag nga def ko bee nga def ko abibas ndax loolu am na da nga dem bi abibas mm-hmm. mais loolu da lay woon ni ko xam loolu adidas defar ko mais tur kële la bëggam bu boobu ay dàll mën a jàpp mm. tey monsieur Babou suñu tur la bëggam bu pour que bu demee ci kilifa yi moom du pour biir Kër Massar ndax Kër Massar ñëpp xam nañu Kër Massar ci yitte ñëpp xam nañ koy Abdourahmane Fadi Diallo moom Kër Massar yitteelu ko ndax moom ba mu ko à chaque fois day wut ay parrain maanaam day bëgg bu demee si ñooñu ne leen maa ngi liggéey biir Kër Massar Kër Massar suñu yitte ku dugal loolu gis ay programme Kër Massar suñu yitte jàpp ni moom la jël si seen gafa jox ko mu jël si gafaam dem mais kenn xamee ko fi Kër Massar liggéey bu mucc ayib bu nga xam ne def na ko amul lenn lu nga xamante ni def na ko rek na ngeen am na kàddu bu nga xamante ni ko jël mais bu ma ko sañoon damay ne nit la ko nga xam dafa sàcc du ay liggéey rek mhm. liggéeyu nit la fekk mu sotti mu sàcc ko te bu gëmoon boppam dama gëm nit ki dafa war a jóg ak ndaw ñi ñi ko jox bopp mu jóg mu liggéey mu wut turam mu liggéey bëggoog mënees naa am dafa bëgg ñu topp si yoon ak yooyu ñun yooyu yëpp dañ ci dugg ndax yow sëñ jibaa xam nga ko man ci loolu laay liggéey propriété intellectuelle ak yooyu expert la bokk naa si ñi nga xamante ni tey ci Sénégal lu ci lënt dinañ ma woo ma bokk si nga xamante ni dinañ ci waxtaanee kon tey jaar-jaar ak ñu war a jaar ci yooyu ñun xam nañ ko waaye yooyu ñu jël ñu tax dañoo jàpp ni rek moom moo toll foofu ñun weesu nañ loolu ñun askan bi lañ ñu tax a jóg moom nag bu jógee ne moom askan bi lay nax ndax moom loolu rek askan bi lay jéem a nax waaye ci biir dina xam ne boppam lay nax li ci kanam nag raw lay jëm mm-hmm. mais dama lay confirmer ni ñun monsieur Ba investir uñu ko suñu mouvement amul kenn ku nga xamante ni investir na ko au nord ndax am na ñoo xamante ni suñuy nawle nga xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu mel ni ay vision citoyenne ak bu ñu demee ci cappaandaw la wax dëgg yàlla

wax deug yàlla poosam kese moo ko tax a jóg askan bi sa taxu koo jóg ndax xam na ni biir Kër Massar loolu muy wax du ko jëme fenn hmm. mais kilifa yi muy seeti ay ministres ak yooyu pour ñooñu tooyal ceebam rek ñooñu ko si jublu pour nax leen jërëjëf ñun yooyu intéressé wu jërëjëf euh, président defe naa ni leeral yi am na solo te euh, du comme ni ko tubaab waxee ça part tomber dans l'oreille d'un sourd euh, am na solo li ñuy def rek temps bi mayetuñu ko mais dinañu wax si ñaari ponk yoo xam ne ponk yu am solo lay doon di actualité bi si njëkk mooy dañoo xëy ci Sénégal dégg assemblée nationale coowam faux passeport diplomatique euh, dëkk bu mel ni Sénégal bu respecté bu respecté boppam ndax war nañoo dégg coow yu mel noonu ay coowal faussaire wala yu mel ci ñi nga xam ñoo teewal askan wi ca pencum ndaw réew mi. non ñun jàpp nañ ne lii gàcce la ci Sénégal gàcce la ci Sénégal tey gàcce boobu nen rek lañ ko mën a raxase maanaam ñi ko def ñu teg leen daan yu nga xamante ni daan yu nga xamante ni ëllëg keneen ku ko bëgg sax doo bu dee dem nañ comme ni ñuy wax présomption d'innocence rek lañ mën a def tey mënuñu wax ñoo def defuñu waaye bu dee ñooñu ñoo def liñ leen tuumal ñooñu sa daan bi nga xam ne dinañ ko def sénégalais lambda sa waruñu leen ko jox leen ko def lu gées loolu lañ leen war a def ndaxte tey ñoom dafa am tolluwaay dafa am fu leen réew mi teg te loolu moom doon na lu nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ñun ñu ko rafet rafetluñu ko ci fànn yëpp ndax lii dafay gàkkal suñu démo démocratie dafay gàkkal suñu image te surtout passeport diplomatique bu nga xamante ni tey mooy jumtukaay bu nga xamante ni tey kilifa Sénégal buy génn moom ngay wone bu ñu demee beneen loolu jumtukaay boobu wóoratul wax dëgg yàlla loolu doon na lu doy waar trop moo tax nag justice def liggéeyam bu dee dem na ba ñu gis ni ñooñu seen loxo tax na ji nañu rëq seen dikk bu baax a baax na loolu loolu la ñu tey am na lu nga xamante ni duñ ko nangu kenn lii héritage la bu nga xamante ni tey ñun war nañoo sóor suñuy doom yi ñëw war nañoo sóor suñuy sët yi ñuy ñëw ni suñu maam yi ak suñu papa yi fexee ba jox réew mu mel nii mu toll fii am respectabilité ak honorabilité notamment euh, tey si wàllu diplomatie Sénégal ñëpp xam nañu Sénégal réew mu ndaw mais fépp ci àdduna lépp luy xew dañ ciy boole Sénégal du suñu koom-koom du lenn lu bi nga xamante ni Sénégal am na ko mu amoon ay nit xarañ ñu ko liggéey ba tey du ñu nangu nag ay nit ñëw salfaañe loolu yàq ko te dara waralu ko lu dul seen seen seen topp seen bànneexu bakkan rek en tout cas justice bu demee dañu gis ni ñi ñu koy tuumal ñoom ñoo ko def man de. damaa jàpp ni ñooñu dañ leen war a teg daan yu metti loolu nga xamante ni ëllëg ku ko xalaat sa doo ko def ndax lii moom tooñuñu nguur gi kese dañoo tooñ Sénégal yëpp dañoo tooñ génération yu weesu dañoo tooñ yi nga xamante ni dañu jël seen lépp jox ko Sénégal ba Sénégal bi tey foo dem nit ñi nawloo ku jóg nag ne day gàkkal loolu kooku moom yaakaar naa ñun ñëpp ñoo war a jóg xeexal moom du ma samba du ma dem demba waaye xeex la bu nga xam ne xeexu Sénégal yëpp voilà président mu loo xamante ne tamit mu ngi def actualité Sénégal depuis presque plus donc mu ñëw mbas mi maanaam yàq lépp ci développement rek ñu côté économie ak côté yu bëri yoo xamante ne mënuñu ko fi biir donc tey euh, ñoo apprécié euh, liggéey bi nga xamante ne riposte boo xamante ne euh, ministre de la santé indi na ko ak ses services concentrés ñoo ko mën a apprécié. waaw ñun jàpp nañ ni riposte bi nga xamante ni bu Sénégal def nañ ko gis nañu si ay résultats yi nga xamante ni wax dëgg yàlla état jàppale woon na population bi ci wàllu dund mi bi bi nit ñi sonne lool ñu indi dund. jox ko nit ñi président de la république mu doonoon lu amoon solo ñun fii si Kër Massar en tout cas nañ ko lu am solo trop ndax ñun ci suñu population ñu ci ëpp ay nit ñu néew doole lañ euh, feebar bi ñoom it ñu taxawoo ci taxawaay bi nga xamante ni wax dëgg yàlla xeex nañ mais jàpp nañ ni comme ni ñuy wax rek euh, liggéey boo gis rek bu demee be benn waxtu dinañ gis lu nga xamante ni buñ ko yokkee rek wala buñ ko taxawee dina doon gën a ñoom tey ñun jàpp nañ ni implication bi nga xamante ni waroon nañ ko def ci population bi ñun jàpp nañ ni des na maanaam tey mel ni ASC yi ak yooyu waroon nañ leen gën a a impliqué dëgg la euh, sensibiliser nañu kii nañ mais bu leen gënoon a impliqué au niveau de la base ay bàjjenu gox yi ak yooyu amoon na jamono sax jën nañ ko mais jàpp nañ ni buñ ko gënoon tax population bi nit ñi gën cee farlu parce que xam nga Sénégal population dafa doon ku nga xamante ni. comme niñ ko doon euh, waxee rek xam nga tey ci wàllu feebar bi mbas mi fi jot am am na taxawaay yi nga xamante ni comme ñu ko waxee nguur gi taxawoo nañ ko. waaye bu ñu jàngatee tey ci tolluwaay bi eh, am na yu bëri yu nga xamante ni eh, jàpp nañ ni mënoon nañ cee gën a jëlee daal njëriñ ci wàllu surtout suñu économie bi ndax feebar bi nu mu ñu sonalee sonalewul nu mu sonalee tubaab yi ak réew yu ëpp doole yi si àddina bi sonalewu ko ñun waa Afrique rawatina si waa sénégalais ak yooyu kon tey waroon na fekk ñun yenn taxawaay ñun ñoo ko waroon mën a taxawoo ba tey ñoom lu bëri lu nga xam ne dinañ ko doon soxla dina doon jóge ci ñun tey bu ñu jëlee ci masque yi nga xamante ni amoon na jamono France si boppam ak lu muy rëy rëy yëpp Chine la doon xaar pour Chine defaral ko ay masques yóbbul ko te pourtant ñun économiquement gis nañ suñu tailleur yi jot nañ fi defar ay masques yu mucc ayib yu nga xamante ni bu ñu respecté woon normes yi rek buñ ci taxawoon ñun waroon nañoo mën a exporter produit yooyu yóbbul ko réew yu mel ni France ndax ñun quand suñu économie nit ñi ñu ngi doon liggéey am na jamono yu nga xamante ni ñoom dañoo tëj seen lépp nekk ci confinement total wala confinement partiel te ñun boobu fekkoon na ñun ñu ngi doon liggéey jamono yooyu waroon nañoo mën a xool ci suñu wàllu commerce eh, ñu am yenn yi nga xamante ni ci wàllu dund ci wàllu tey yu mel ni masque yu demee noonu nga xam ne fii lañ ko doon defaree yóbbul leen ko loolu ay taxawaale yu nga xamante ni war nañ cee taxaw xool ba xam ndax euh, loolu opportunité la yu nga xamante ni waroon nañ ko saisir comme ni ñuy wax fépp fu problème am rek am na ay opportunité ak ay solution yi nga xam ne nit ki waroon nañ koo mën a jël ñun yàlla def ñoo beral loxo bu baax a baax si mbas mi ndax euh, ñi mu dal ñi si ñàkk seen bakkan ñoo ngi leen di jaale di leen ñaanal yàlla yàlla xaaral leen àjjana mm-hmm. waaye it euh, ñun de yàlla euh, teg na loxo si ñun ndax mbas bi metteewul comme nu ñu mettee si ñoom tubaab yi daanaka seen économie yëpp a nërmeel woon ñun mënoon nañ cee jaar daal ñu neen ñu suqali bu baax a baax suñu suñu économie ci fànn yu bëri tey ci wàllu defarum garab bi yu bari ñu ngi ko doon jële bitim rek waroon nañoo mën a suñu usines yi nga xamante ni ñu ngi doon defar garab yooyu dëgg fu mu ni nguur gi mu koy taxawu jàpp nañ ni nag waroon nañ koo tàmbali bi feebar bi tàmbalee ndax euh, xamoon nañ ni fa la ñu jëm dinañ doon dem ba yenn yi buñ ko soxlaa sa ñun ñii duñ ko mën a am dëggoon ngeen fi si ay jamono ñuy naan yenn garab yi dañoo dañoo manqué woon ak yooyu bu ñu amoon suñu industrie comme ñenn ñu ñuy wax suñu autonomie euh, yenn yi dinañ ko doon mën a def te yàlla xam na ni lu mën a nekk la kon Sénégal daal war na tamit jàngaat ci lii ñu xam ni ki tey ci mondialisation bi ñu nekk yenn xarala yi doon na ay jumtukaay yu am solo yu nga xamante ni war nañoo fexe ba nit ñi mun si jot tey yéen yéen a ngi nii ci xarala yu bees yi ngeen ñu nekk di defar émission bi président de la république si boppam demoon na fi bi ay vidéoconférence la doon def tey pour euh, def conseil des ministres kon yooyu waroon nañoo mën a fexe ba ci école yi nit ñi war a mun a continuer seen jàng wala mun a def ay seen i examen wala tey yenn bérébu liggéeykaay nit ñi war koo mun a def seen i kër di jëfandikoo jumtukaay yooyu dëgg la am na fu ñu ko jéem am na ñu ko def mais ba tey dañu jàpp ni doyul kon loolu dafay firndeel rek ñu noonu tey am na lu bëri lu nga xamante ni jéem nañ ko suñu économie ak suñu développement mu ngi ci waaye am na lu nga xamante ni des na des na surtout tey li nga xamante ni dinañ ko jëlee ci ay bërëb yi nga xam ne feebar bi amu fa woon doole trop yu mel ni ci biir région yi ak yooyu ndax bu ñu waxantee dëgg am na ay ay régions yi nga xamante ni daanaka feebar bi def leen a cof rek wala laalu leen ñu waroon nañ leen utiliser opportunité boobu ñoo ñu nekk ci wàllu agriculture wàllu mbay mi wala wàllu yenn yenn besoin yi nga xamante ni yenn soxla ñun am nañ ko wala waa bitim réew am nañ ko ñooñu liggéey ko ñu jël ko jébbal leen ko fexe jaay jaay ko tey lu mel ni commune Kër Massar suñu mairie waroon naa mën a taxaw jël atal tailleur yi yëpp boole leen jël ay moyens jox leen parce que jafe-jafe yi ci tailleur yi du caageen ne amuñu woon opportunité wala amuñu woon xam-xam beeg yooyu mais moyens ñoo fi amuloon ndax nit ñi yoratuñu dara ñëpp a sonnoon mais bu ñu leen joxoon ay moyen tey ñoom waroon nañoo mën a defar masque yi nga xamante même nguuru Sénégal sax dina doon jënd masque yooyu wala ñu jël ko jaay ko yeneen réew yu ñu dendal lu mel ni ay gàmbi lu mel ni ay Guinée-Bissau ak yooyu ndax aussi collectivité territoriale war ngaa war a fexe saa su ne lépp luy njëriñ sa askan nga taxawoo ko yooyu doon na yu am solo yu nga xam ne ñun de jàngat boobu def nañ ko ci mbas mi nga xamante ni gis ngeen tey lépp lu feeñ ci ay invention innovation ay ndaw yu defar ay appareil lave-mains ak yeneen pour wone rek ni ñun am nañu ay ñu xarañ am nañu ay nit ñu am xel bu ñu jëfandikoo xel yooyu rek jafe-jafe yu bari ñu ngi koy dund dinañ ko mën a saafara ñun tey ci biir Kër Massar jàpp nañ ni ay liggéey yu nga xamante ni tey wàllu jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ci wàllu liggéey bi tey bu ñu amoon ay centrale d'achat yu nga xamante ni lépp lu ñuy def dañ koy daal di boole dëxëñ ko tey ñoom bu ñu liggéeyee liggéey bi dana doon liggéey bu nga xamante dinañ ko bokk ci bépp fànn daañu ko defaree defarin bu nga xamante ni ñoom ñoo koy nirole ndax dañuy am sas bu nga xamante ni li ñu woowee ay cahier de charge képp kuy defar ay lu mel ni araw wala leneen ak leneen ñoo koy bokk defarandoo lu mel ni mbas mi bu ñëwoon dinañ doon mun a am production bu nga xamante ni ñoom soxlawuñu ñoom ñëpp ñu toog ci benn bërëb ndax kenn ku nekk xam nga lan nga war a mën a def war ngaa mën a nekk sa kër yow nga def pàcc bi nga war a def keneen def pàcc bi mu war a def ñu jël ko ñu boole ko ñu am ay produits yu nga xamante ni wóor nañ ni jël nañu lépp luy kaanaange bu nga xamante ni tey kenn du mun a duut baaraam ni produit wóoluwuñu leen bu boobaa ñu jël ko ñu jaay ko pour wane daal ci tënk daal mbas mi dëgg la méttiwoon na mi am na lu bëri lu nga xamante ni waroon nañ ko ci mun a jëlee ngir ñu gën a taxaw tey bi mbas mii di waaj a jeex yàlla na ko fi yàlla jëlee complètement waroon nañoo bokk ci économie yi nga xam euh, président Abdourahmane Fadi Diallo euh, émission mi ngi ci cappaandaw gi waaye nag nañu euh, nga wax sa kàddu gu mujj bi nga xamante ne moom ngay lancé ñi nga xamante ne mooy askanu Kër Massar waaw laata bi ñu leen sante yéen waa Dépêche leen remercier di leen féliciter di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla taxawoo seen initiative bi mm. seen télévision bi yàlla na ko yàlla yàlla barkeel bi mu doon télévision bu mag mu bokk ci tele yi ëpp doole si biir Sénégal ndax d'abord ay ndaw ngeen xarañ ngeen am ngeen xam-xam bi mm, yàlla na leen yàlla jàppale ndax yàlla kese moo moo moo yor doole ku mu dooleel ku ne mu dem te yéen jóg ngeen ngir taxawoo askan bi ndax loolu kese moo waral tey seen teewaay fii te bi ngeen ñëwee tànn leen ki man ak ki manul ki am ak ki amul da a xool ñi nga xamante ni am ngeen yaakaar ni ñi mun nañ taxawoo askan bi ngeen tànn leen kon loolu day firndeel rek ni yéen liggéey kese moo leen tax a jóg defar kese moo leen tax a jóg kon d'abord dañ leen di sant yéen sant waa mouvement Kër Massar suñu yitte yëpp surtout ñi nga plateau bi vice président bi nekk fi Adama Kane président commission finance nekk fi yaa euh, kii Aliou Sow euh, beneen président de commission aussi Yaama Touré nekk fi ñu teewal fi ñeneen ñi ñëpp ñi nga xamante ne ñoom Babacar Diop ak ñeneen ñi war nañ ñëw ñu leen sant gërëm di remercier mouvement bi nga xam ñoo ma tàbb jiital ma ci mouvement bi waaye ñoo tàbb bëgg maa def candidat bu loolu weesoo daal message bi ñu mën a lancé ci jeune Kër Massar ak waa Kër Massar mooy nañu gëm seen bopp nañu xam ne tey guuta kenn mënta saafara suñu jafe-jafe yi suñu place nguur li mu man mooy def ñuy gunge nguur li mu man daf ñuy jox ay moyen waaye moyens yooyu bu ñu ko joxee ñun ñooy xool lan mooy suñu suñu suñu suñu suñu jafe-jafe suñu biir commune lan moo nekk suñu spécificité comme tubaab bu ñu koy waxee ñu taxawoo ko ñun ak suñu collectivité territoriale nañu bañ ku leen jënd nañu bañ ni ñu ñëw ñu ngi dem ci ay élection nit dina ñëw jox la cent mille wala cent bi nga ko gëj a gis élection yi amoon fi juróomi wala juróom-ñaari at ci ginnaaw nga ko gëj a gis bu ñëwee ba dem doo doo ko doo ko gisaas nañu xam ni ki tey dañoo toll fu nga xamante ni nañu fexe topp ñi nga xamante ni daañ leen woon yoon bi nga xam ne dinañ mënal seen bopp dinañ leen woon yoon bi nga xamante ni dinañ defal seen bopp ndax tey suñu ndaw yi ñu taxawee suñu ndaw yi ñoo yor suñu ëllëg taxaway bobu kenen manu ko tey Chine amul lenen mu rawee yenen rew yi lu dul ay population bu nga xamante ni am amul dara amul ben richesse matérielle bi nga xamné amnako xam-xam lañ ci def rek te xam-xam mom luñuy def ci suñu ndaw luñuy def ci suñu askan déjà amna luñu am ndax population keur Massar kar kaar macha allah opportunité biñu am diversité biñu am ci bir keur Massar amul ben commune fi ci dakar bi ko am wala département bi ko am mën na nek ci Sénégal amul fenn fu nga xamanteni diversité bi amna yu bëri ay Casamance nga ko tànn gisee mais ampleur bi mu am fii si biir Kër Massar même Casamance bi ma xam ndax Ziguinchor laa cosaanoo amuñu ko maanaam tey fii ngay fekk communauté bu takku nga xamante ni alal du xaalis kese dëgg la xaalis alal alal la mais alal bi ci ëpp mooy alal bu nga xamante ci doomu aadama la nekk maanaam sa culture sa melokaan sa gëm-gëm sa diine ak yooyu te loolu am nañ ko ci biir Kër Massar loolu nag lañ war a jël mu nekk ñun suñu jumtukaay bi nga xamante fi ñu bëgg a yegg ñu yegg fa tekkiwul ni ñeneen ñi ñu ñuy defee seen développement muy réewu rasan nasaraan ak yooyu ñun développement boobu la ñuy yóbbu déedéet dañoo war a yóbbu développement bu nga xam ne dafa méngoo ak suñuy gëm-gëm méngoo suñuy suñuy aada méngoo ak kii tey boo xoolee diversité culturelle boobu rek culturellement parlant rek tey Kër Massar mënoon na am festival bi nga xamante at mu nekk bitim réew ñëpp dinañ fa jóge ngir ñëw xool festival boobu ndax pëli dinañ wane ne ñu ñu doon loo xamante dina Kër Massar jàng ci fii en tout Kër Massar ci bu ñu yàlla dimbalee ñu ba jël gox bi ñoo ngi leen di jox rendez-vous néew ma leen cinq ans ay ñetti at lañ leen may commune yu bëri ci biir Sénégal dinañ ñëw di jàng ci di naan lu mën a nekk la wala lu mënoon nekk. Mhm. Euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon euh, président Abdourahmane Fadi Diallo di euh, président mouvement Kër Massar Sama Yitte dañ koy jaajëfal ngir immunité bi nga xamante ni am na ko. am yéene bokk ci suñu émission muy lancement émission apostrophe waaye tamit dañ koy euh, jaajëfal ci xel bu sell bi nga xamante ne waxee na ko lépp jëm ci naal ay naal yu rafet naal yu am solo euh, rek ngir euh, jëmale li nga xamante ne mooy gox bi karam bi Kër Massar kon dañ koy jaajëfal bu baax a baax jiba suñu émission mu ngi tiré à sa fin vraiment ñu content ci koo animé loo débat bi ak yow. voilà donc Mouhamed Diop man maa gën a kontaan voilà di remercier comme ni nga ko waxee le président Abdourahmane Fadi Dione parce que comme ni ma ko waxee casquette yi bari na parce que ingénieur eh, polytechnicien la nekk en même temps directeur technique agence bu tudd Afrique mooy agence sénégalaise pour euh, la propriété industrielle et innovation technologique donc malgré calendrier bu chargé bi mu am vraiment fexé na bama ma jox ñu benn parent boo xamante ne mun nañu ak mom c'est ak mom waxtan donc ñu ko ci remercier bu baaxa baax wala di remercier ñëpp euh, ñu xamante ne dañu jàpp ci émission bi ci wala conception ba ci wala réalisation surtout nak suñu mbokk internet la DAPS TV amuñu seen fay donc Mouhamed Diop euh, dal ma jox la nga tëj incha ñu jaajëfal également suñu mbokk internet yi nga xamante ne saa su ne la ñuy topp xaddi ñu benn yoon euh, noonu ko digoon li ñuy wax la promesse est une dette euh, tey ñu ngi ngir amal leen ay émission jëm ci lancement wu nga xamante ne mooy apostrophe euh, di leen ñaanal kenn dem te di leen dox daje ëllëg incha allah si émission yoo xamante ne di leen ko indil jërë